daleen ak jàmm vous internet yi bu bonsoir bu c'est le matin bonjour di wa rahmatullah presse bi une semaine yi nii jours yi dañ de bolé ci liste Nicolas Jackson Moussa Nyahate ak Ismail Jacobs donc ñetti joueurs yooyu boo xoolee presse bi yëpp que ça soit Observateur le quotidien ak yeneen euh, presse bi nga xamante ne que ça soit en ligne écrit ñoom ñëpp dañoo wax ne trois jours yi moom dañuy bokk si liste bu Aliou Cissé bi nii man mii sax bi may joxe équipe probable dem leen ci boole. maintenant yéen loolu leen ci xalaat par rapport trois jours yooyu noonu euh, ci commentaire wax wax leen si seen xalaat maintenant man lan laa si xalaat par presse bi ñu wax tey jii benn Ismaïla Jakobs on est d' accord pour wax ne leen Sénégalais yi leen leer na leen jamono bi Saliou Ciss amagul club ba ni may wax ak yéen amagul club loolu problème la Fodé Ballo-Touré ñëpp xam nañ ne du titulaire ans AC donc ismaël Jakobs ñëw c' est normal xam nga c' est normal amul keneen ku fi nekk am na benn jour bu ñu doon wax temps yi passé yëpp jaw nekk fële Orea AC waa waa waa Mauritanie woo nañ ko xam nga donc pour vous dire que peut-être que yaa am na yenn latéral gauche parce que man defal naa leen ay vidéo wax leen ay latéral gauche yeneen am na ku nekk Leipzig Sanasiba mais c' est des boy quoi mais tey boo xoolee début saison bi du côté de Monaco ak loo mënti wax euh, temps de jeu ismaël Jakobs am na ko même yi mu titulaire

mais ni ni dañu jëm ci coupe du monde match de préparation la ñu wax waxuñu match de qualification de wala éliminatoire de ken éliminé wu mais de préparation manam da ngay préparer coupe du monde léegi ne boo bëggee préparer coupe du monde faut essayer les jours nga nga woon foofu trois jours sax baax na woowaat sax beneen booy sax baax na waa Cameroun 36 jours la ñu woo jours ñoo xam ñoo ñu mëna ñu coupe du mais c'est pour essayer c'est maintenant ou jamais manam légui ni ni légui nga mëna essayer donc ki di euh, Jacobs d'accord mais à 100 nous ñu convaincre Les on va avancer un peu on va parler de notre joueur bu xamante ne voilà Qui euh, dit Nicolas Jackson presse bi tamit wax Nicolas Jackson day nous. moom aussi est-ce que nous c'est mérité ou pas et est-ce que c'est normal ñu koy wax souvent ba ñëpp d'accord ne jamono bi dafa war a ñëw dafa war a ñëw moom tamit la pourquoi yéen sénégalais yi xam ngeen Sénégalais. bu baax a baax yéen a ngi qui seen équipe nationale du Sénégal bëriwoo leen ay joueurs côté maanaam bu ñu waxee joueurs ay ailier man te parfois sax damay bëgg un vrai élite de formation maanaam joueur de côté pur tey jii Krépin Diatta mën na la jouer côté mais c'est pas un joueur de côté pur donte nag ñu bëri dina naan non Mohamed pourtant bu ñu nee Sénégal fii doon na ko jouer de mais boo xoolee proposé ses qualités ni muy jouer xam nga je préfère am benn waay boo xamante ne day am dribble day am explosivité day centré day combiné xam nga du dugg ci biir milieu tamit des joueurs de côté pur Nicolas Jackson donte ni dina jouer attaquant parce que xam ngeen Casa Sport fii

Villarreal encaissé wul benn but saison bi mu commencé ba le gars sur quatre matchs il est titulaire sur les trois il est titulaire face à Atlético de Madrid bi nga xamante ne moo ngi Ligue des Champions donc waxuñu ko pour wax ni Unai Emery boo xoolee sax Boulaye li tax mu dem Salernitana Serie A bokk na si Nicolas Jackson mi donc Nicolas Jackson bi ñuy wax aussi tamit c'est mérité mu def leen troisième joueur bi Moussa Niakhaté Moussa Niakhaté yéen xam ngeen ne Moussa Niakhaté xam nga ñaata vidéo laa def ci moom moom aussi c'est mérité ah parce que tey jii boo xoolee Aliou Cissé Bon, on le le bu qui euh, di de capitaine c'est pas Abou mais Abdou Diallo déjà Diallo c'est un gaucher Moussa un gaucher est-ce qu'il a fait une prestation oui la Bundesliga le capitaine di tirer penalty Angleterre Nottingham Forest sur deux trois matchs gars yi commencé chroniqueur na on défenseur bi donte Nottingham Forest def nañu affaire bu baax mu njaxate la malheureusement si après dafa am gaañu gaañu moom aussi tamit presse ñu wax ni ñëw et que lui aussi, si benn interview bu mu defoon bu mu mujjoon def xamaloon na moom ak saa dégg téléphone donc depuis l'année dernière il mérite ñu convaincre par rapport ak prestation par rapport ak comparaison ak Abdoulaye Seck bi newoon fële Belgique donc c'est est mérité maintenant nag ak gaañu gaañu bi de préférence si toutefois il n'est pas à 100%, pour cent wala warul il n'est est pas apte Malang Sarr peut faire l'affaire. mais moom aussi tamit c' est mérité prochainement bu ñu ko gisee ci liste bi mbokk yi li mu ko vidéo bi ci commentaire yi wax li ma seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di wax ba beneen sur Senfootball TV